asalaamualeykum asalaamualeykum wa rahmatullah euh, man la Seydina Ousmane Dramé bu la réveil des consciences euh, dañoo del si nag ci waxtaan woo xam ne euh, samay doom ci boppam ñooma ko laaj ñaan ma ma indi ci sama xalaat maanaam le mariage bi nga xam ne Sadio maane def na ko muy mariage boo xam ne civilisation yëpp ci d'accord diine yëpp ci d'accord jullit yi rafetlu nañ ko chrétien yi rafetlu ko le judaïsme rafetlu ko dama ne képp koo xam ne si doomu aada nga bokk ci civilisation boo xamee ni àdduna bi tëddee xam ni ko Sadio Mané defee rafetlu nga ko jigéen euh, dafa am bind boo xam ne la ko yàlla bind bind boobu ko yàlla bind ëllëg bu ko yàllay laaj bindam boobee mu ko bindoon moom la soxlaa jàkkaar lool euh, muy responsabilité boo xam ne bor la buñ yàlla lebal euh, buñ ko ko foylit bun demee taxaw ca kanam ëllëg nam nu bindoon ab virgule di ci soppi ko li Sadio Mané def nag ku mag yar la euh, ku jaar ci daarala ku ami bokk la ku bëggi bokkam la ku nangoo nun ay jullit la kon déglu kii ba noppi nag ah, ñu door di si waxtaan بسم الله الرحمن الرحيم ألف ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بال إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غساوة ولهم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 الشفهاء ألا إنهم هم الشفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين بسم الله الرحمن الرحيم waaw noo bokk dégloondoo couple bu bees bi lii ku naa fequl ku naa fequl xam ne lu am solo la lu mel nii la seeni baay bëgg lu mel nii la seeni ndey bëgg euh, xale nag euh, bu bëggee tekki bu bëggee tekki euh, day am kilifa ndax àdduna bi lëj na lëj goo xam ne foog nga déglu sa baay ak sa ndey ak sa nijaay ak say bokk pour mën a xool foo teg sa tànk nii Sadio Mané def dama ne yenn Sénégal yëpp. te xale loo ñàkk-ñàkk xel loo inconscient inconscient boo seeti nii ko Sadio Mané defee euh, war nga ko mën a jéem ma yedd xale yépp nag boîte di nuit di ko jëlukaayu jabar boîte di nuit di ko jëlukaayu jabar ak sabar di jëlukaayu jabar dem ciy jàng xool ñey fecc ka tëb nga gis ca kenn képp ndax na muy yëngutoo takk ko amu jabar jabar c'est un fondement jabar da ngeen waxtaan ak seen ndey wax ci la ak seen i baay te ngeen xam ne te ngeen xam ne ay jullit ngeen islam dafa am nooy jële soxna nooy jëlee soxna ndax soxna euh, mooy kile lay indi di doom ëllëg te ab denc da nga ko war denc barab boo xam ne bu sell la bu set bu yàlla nangu ma bëggoon ci ay conseil euh, ngeen mooy marché bi tuxu Dakar rek ambulant amus xaalis ubbi boutique ab jeeg romb la di telli telli ci marché bi nga dugg ci say bokk yëgu ko da nga jur loo xam ne ëllëg dana taxaw saaga sa ndey boo moyul ni seen i bàyyi def dara sikku ci moo tax ngeen mel nii ngeen mel bu leen àdduna soppi bu leen adduna soppi xale julli yaa ngi ni baax ba dee dugg leen ci daara yi ngir yàlla dugg leen ci daara yi xool xale yaa ngi fi xool leen xale ibaadu rahmaan xool leen xale yu ibaadu rahmaan xool leen seen i laxasaay seen i muuraay ak seen yiw ak seen i comportement ngeen jël ci xale yi dugg leen ci daara yi jàng alxuraan ngeen xool xale yu jigéen yi comme nii xale yi def ak Sadio Mané bu ngeen ko defee euh, seen baay xolam sedd na seen ndey xolam sedd na bokk xolam sedd te jullit yëpp ci sawar jigéen yi nag poosé seen i ween jël zidikon def ci silicone mooy produit yi nga xam ne moom def ci yéen di ko yokke mu rëy lool am na benn forme silikon boo xam ne day mel ne ay buun day mel ne yoroxlaan loolu ni jël ubbi seen xotti taat yi di ko ci def mu rëy lool nga defee ne ay taat nga yor fekk ci silicone ngay jàm bi a moqar ci euh, kenn del si ngir yàlla kenn del si ngir yàlla àndaat doon ay jullit seet noo xam ne Euh, bu ñu seetee nu rafet rek nu bokk doxalee lu baax mën na ci ak génn dellu leen ci kër yi ngeen waxtaan ak seen ndey ak seen i baay bala ngeen dugg ci lenn dugg ci lenn lislaam nag du ay caaxaan du ay caaxaan buñ bokkul ànd di waxtaan di ànd di trouver solution ci erreur li ñuy dëkk adduna bi saytaaneel dafa bari doole bari doole goo xam ne kenn mënu ko daan mbooloo koy daan te mbooloo moomu dañuy ànd sot ko door koo daan te mbooloo mu ca gën mooy ñaga bokkal kon di leen waxtaan ak seen bokk ba ñu juyoo ak ñoom bala ngeen dugg ci njëlum jabar da ngeen di xool Sadio Mané mi nim def El Hadj Diouf footballeur star loon woon xool leen lim def ak li ko dal xool leen Pape Bouba Diop Pape Bouba Diop bi mu gaañoo ak léegi mbokki Pape Bouba Diop ñu ngi jàmbat ne ndaw si lépp lu Pape Bouba amoon da caa teg loxo xamul sax kon ndeyam mi ngi dund wala baayam xol leen Sadio Mané ni mu def ak ni mu ko defee dugg leen ci daara yi te ngeen waxtaan ak seen baay te ngeen xam li dugg mooy lan ku ko ci duggul ku ko ci def ku ne àdduna ak sa kanamtu da nga ko réccu jigéen du mokkal alxuraan di ko tari jigéen yoo xam ne dafa sell set di muuru ween yi ko yàlla jox mu naturel karaw gi ci bopp doon lu naturel ay wem doon lu naturel du laal mukk mukk mukk rouge à lèvres ay pastel nga yooyu yëpp ci mbaam xoox la jógee du ko laal jigéen jooju mel ne melokaan wi ngeen bàyyi ko fi dugg ci jigéen ñoo xam ne kenn xamul lu mu doon ndax ay star ngeen ci ba ngeen di dugg toppandoo baaxul gore leen seeni baay liñ bëggoon seeni day bëgg ko moo ngeen doon ay sénégalais de vrais citoyens sénégalais yu digne doon ay julli yu wér yu wér yoo xam ne da ngeen di sukkandiku ci lislaam def la ngeen di def te ab sëy du ay caaxaan waaw li ngeen ma ci laajoon nag loolu laa ci mën a wax ndax xale yi léegi euh, daanaka euh, njurum léegi ñu bokkut ak bu njëkk ma ñun mosuñu jàkkaarloog suñu bàyyi bët ak bët te xale yii mën na jël baaram di ci seen bëtu baay bokkut bokkul ba tax na euh, kan bokk ñun ñëpp ñaanal xale yi ñu dëpp ñu dëpp fii ñu jëm du foofu tubaab bi sànq ne leen rek internet bi lii silicone la moom lañ dugal ci ay ween ak xotti taat ndaw si nii ween yi toll silicone bi ngeen gis bii ma leen woon moom lañ ci def silicone lañ ci sol ba mu fees dell dell docteur baa ngi nii di ko def yu mel nii nag yow en tant que star en tant que musulman nga topp ween yu rëy yi ba sànq sa bopp sànq sa diini jur ay doomeeram lii dafa ne amul benn baay bu ko bëgg amul ndey ju ko nangu amul bokkuñ yu ko bëgg yéen jigéen ñi rek Sénégal di toppandoo tubaab yi rouge bi ngeen jël lépp mbaam xuux la yii ngeen jël ay produits benn bu baax nekku ci am leen kersa am leen kersa te suturaal seen ndey suturaal seen baay suturaal diine ji suturaal leen diine ji xotitaat yu rëy romb la tax nga fab sa diine sànni fàtte ne amoo nga ndey ak mel na ko dof lii Sadio Mané def mooy dëgg te Alla Diouf réccu na Alla Diouf na Pape Boubou Diop ay bokkam kontaanuñu te lii Sadio Mané def waxuma ay bokkam waaye kulli kuy jullit kulli kuy chrétien kulli koo xam ne au civilisation dama ne kulli kuy doomu aadama bëgg ci mariage Sadio Mané bi kon maa ngi leen di ziar te jéggalu man la Seydina Ousmane Dramé bu la réveillé des waaw bu la réveillé des yàlla buur yàlla suturaal yàlla te suñ doom yi dëpp dëpp doon ay sénégalais dëpp doon ay julit dëpp jël seeni responsabilité pisan loo